su suñu ñëwee si boo si góor jigéen ñi ñaari tur yi dafa mel ni organisme bu day ni Jamra wala yeneen ni ñu leen daan déggee engouement bi mu daan am dafa wàññeeku trop ci xeex bi ñu daan xeex góor jigéen parce que léegi ñu dafa mel ni dafa gën a yokk. au contraire madame au contraire au contraire. Euh, wala xalaate bi si média bi moo des. xëy na moo des xëy na boo seetloo président Macky la def na ñetti sorti wax ci wàllu borom ñaar ñaari xool maanaam ñaari tur yi xaw ma xaw ma il laay wax may ma el laay wax. mais président Macky Sall def na ñetti sorti jëmale ko ci euh, les homosexuels bu njëkk bi si ma mémoire est bonne c'était vers le 13 juin 2013 suma jumlé bobu ñom ñoom lañ bëggoon def ben congrès. góor jigen ni góor jigéen ñi ñun jabra ñoo jóg ànd ak ay association islamique ñu def tournée dem ci chef religieux yi def point de presse en conseil des ministres le président Macky Sall jëlé fofu dogal ne fait que ngi fi du fi am le lendemain ñu ni bravo monsieur le président merci pour ça ñu dawal quelques temps Obama ñëw fi Obama ñëw fi bi mu ñëwee ak ñaari journaliste président Macky Sall indi ñaari journaliste tant bobu soko ko ko Alassane Samba Diop bu RFM ak Tidiane Bari RTS ñom le Macky Sall indi comme journaliste ñoko don poser question Obama and ak yeneen ñaari journaliste kenn ki ci góor jigéen ñi la bok. mu poser Obama mbiru goor jigéen mu ni légaliser dans le monde entier ñu président Macky Sall le Sénégal n'est pas prêt ca suba sa ñu sortie ni monsieur le président le Sénégal ne sera jamais prêt pour la légalisation de l'homosexualité Nous ah, ñu encore quelques temps vers 2015 mu dem iTélé moom Macky Sall sa journaliste daal di koy poser question ñaari tour yi pourquoi Sénégal ñoom bañ te monde bi fi mu toll nangam ak nangam nangam mais écoutez pourquoi vous voulez coûte que coûte pousser ñu ci loolu suñu culture xamu ko ñun bëgguñu ko xamuñu ko ko def mu ne waaw ñooñu ne suñu liberté def marche pour loolu mu ne ah bu boobaa nag ñoom ak peuple bi la Macky la def pour wane ni xam ni président Macky le peuple sénégalais du mos a nangu mbiru ñun def nañ benn projet de loi jox ko le député Mbéri Silla ci euh, législative bi passé lépp ñu defar ko ensemble ak moom ñun waa Jamra mu dem ba déposer ko ci bureau as président assemblée nationale mais ba tey yi kenn génnewu ko ndax lan dañu bëggoon criminaliser sexualité comme ni ñu criminaliser le délit de drogue. Mm-hmm. wa bi fi may daaneele rek soxna si mooy ñoom nag non seulement ñun suñu bos jàllul mais ñoom tey ji ñu am fitu di def pétition. pour lan pour ne dañoo bëgg assemblée nationale daganal légaliser ñaari góor wala ñaari yu ngay mais loolu dañuy sonal seen bopp quel sera le député sénégalais qui osera à l'assemblée prendre ce document là ni man may porter projet de bi dama bëgg ñu daganal góor man député boobu laay xaar kan lay war a doon je le pense pas mais mais mais lolu ngay wax yépp ci walu lu jëm ci légal la ñu légaliser comme ça ñu am droit bi am droit bi lolu ci walu légal la mais en dehors de ça ci suuf parce que les réseaux sociaux il faut bëri yaakaar naa ni faut ubbi et puis euh je m'en rappelle bu bu ay at ci ginnaw dañu gisoon ay photo góor jigéen ñu doon marié wu rek nga gis état bi jóg

nous la police les avait épiés topp leen ba biñu ñuy génne seen i xawma teraanga laak seen xawma lan yu ay góor seen biir ñu japp ci fuk ak ben filmer len japp len indi yobbu police yobbu prison deux jours après ñu libéré len ñom ñëpp ku len libéré mais c'est le ministre de la justice c'est l'État du Sénégal ñu len libéré ñu libéré len quelques jours après ñom ñëpp ñu uti visa ils sont partis en Belgique c'est c'est lu doy waar la dañuy xeex loo xamante ni lu metti la ñi ngi koy def ci suuf seen bëgg-bëgg moo doon légaliser ko fësal ko mais xamnañ ni amna ay organisation islamique yu melni Jamra tant que ñun ñi ngi dund inshallah allah loolu du fi am te même suñ fi jóge won ni fi Abdou Latif Gueye jógee yalla na yàlla jégal ko amna na yeneen Abdou Latif Gueye yoo xam ñi ngi fi ba àdduna tukki les sénégalais n'accepteront jamais.

wa mais xam nga c'est est contre nature qui est qui est qui est interdit police a la non il faut ñu fekk leen ñu def ba boba ci di mais ki nga xamanteni ay réseaux sociaux la mëno ci japp nit ki nekk biir néegam teju mëno ko li nga mën moy ñu boole ñu la police mi ngi def lu ministère de la justice comme je l'ai dit mo libéré won ñoñu bu ñu police mais and ak ñom mais amna fi ben année madame dañ fi japp ay goor jigen yu doon sëy ci lu sumba jundiya c'était au temps de Abdoulaye Wade ñu japp ñaari goor di sëy ci biir armée yi ñu tété l'intervention énergique de la police de Médina dañ leen doon ray ñom ñoo daw ci japp leen bi leen jappé matul trois jours conseil des ministres France Nicolas Sarkozy en tant que président moo fëgg ji ni je demande à l'État du Sénégal de faire libérer ces hommes ñu ma am un point de presse ak ñaari kilifa ci Sénégal amoon ci colonel Aliou Ndiaye ñu toog bokk ma mais pourquoi nous ñu Nous leen ñu ni waaw ci ñoom dafa ils étaient porteurs du sida dañuy bañ ñu wàll prison xam nga c'est pour te dire que ñoom ils sont organisés est-ce que madame xam Sénégal a une association d'homosexuels avec récépissé association yoo xamante ni day am carte de membre nekk ay góor jigéen yooyu yëpp mi ngi fi am état bi xam na ko ñeneen xam nañ ko c'est malheureux sa existe mais sañ ñu ko fësal ndax lan am na ay nitu diine yoo xam ne ñu ngi taxaw pare pour jàkkaarloo ak ñoom ñu nag li ñu def Jamra amuñu pouvoir c'est tout ce que nous pouvons faire wax ci kaw ba nit ñi dégguñu loolu la ñu def su ko defee nit ñëw ànd ak ñun ñu xeex ko pour bañ a yàq suñuy doom. Mm-hmm. Mm-hmm.